وسكون إلى ولي المؤمنين وسكون ci ndox mi guddeeg bëccëg te duñoo liggéey sax ngeen ndox mi yi guy mbind ma daal ma am juróomi at yëpp daal màggale mu ci kër gi sama waaw sama benn kër waaw sama benn coopéra la du kii sama néeg nga ne dama ko teg ay mool sama matériel bépp dama ko teg ay mool euh, chers internautes euh, Sénégo ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax Sénégo mu ngi nii à Touba précisément à Guy Mbind mu nekk nii nag euh, ñu ngi à la veille du grand magal de Touba mais li ñu constaté par rapport à daaw mooy ren ji daanaka nit ñi bëreeguñu noonu bëreeguñu noonu ñu ne nag loolu lan moo ko war a waral ñu ne est-ce que nekkul phénomène inondation yi moo ko waral ndax dañu ñëw fii fekk fi ay fekk fi ay kër yi nga xam ne daanaka kenn nekkatu fi ndax les inondations soo xoolee nii guy mbind daanaka pratiquement fi ñu nekk nii y'a pratiquement onze maisons yi nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon yëpp jóge nañ fi te ñoom daaw ñu ngi fi woon mais inondation yi ren daal am na doole ba nga xam ne ñoom actuellement nii nekkatuñu fi donc lañu ñëwee fii ci koñ bi tase fii ak waa koñ bi ñoom daanaka ñoom ñoo fi nekk di jéem a génnee ndox bi di jéem a dimbali seen bopp ngir daal gën ci jafe-jafe yu ñu nekk kon dañuy dem rek jël leen après wax ak ñoom ñoom ñu wax ñu naka bi ñu dund naka la demee. Euh, sëñ bi ñu ñëw fii fekk leen fii guy mbind waaye fekk leen ci jafe-jafe fekk fii mu bëri ndox lool ñu bëggoon xam rek tey ji yéen lii nii depuis kañ ngeen ko commencé dund. ok jaa ngeen jëf ñoo leen di ziar bu baax a baax di rafetlu seen liggéey bu baax a baax. di rafetlu us yi gi nga xam ne seet si ngeen ñu ko fii ci tuuba guy mbind nga xam ne soriwul dara pencum guy mbind euh, koñ bi nag wax dëgg yàlla biñ dalee dund lii yàgg na ay at a ngi nii ci ginnaaw yoo xamante si daanaka mat na dix ans mën naa ne mën na ko parce que depuis sëñ Alaaji Baara nekkoon fi comme xalif defoon fi tali yi nga xamante si moo war guy mbind daanaka ci la jafe-jafe yi gën a bare parce que tali dafa war a ànd ak mais tali boo xam àndut ak assainissement lii rek lay jural askan wi mooy ay kër yoo xamante si nii ay nit ñoo fa nekkoon à la fin dañoo mujj génn fii plus de 15 kër yoo xamante si dañoo génn ñi ci sama ginnaaw ñi nga xam ne ñoom laa den la ñi ci sama kanam ñëpp dañoo génn à cause de lii nii waaw daanaka mën na 10 ans bi ñu ko tàmbalee dund malgré nag am nañ ci ay taxawaay yoo xam ne ñun ñoo ko amal suñu bopp. mais état bi def na ay ci wàllu assainissement à Touba mais léegi yéen ndax yéen sentir ngeen xaalis boobu noonu ndax yéen am na ay autorité yu ñëw fii pour xool seen jafe-jafe xool daal ne pour ñu jëm leen jàppale ñi ñi ci ci inondation yi nekk d' accord loolu dañ ci sant yàlla bu baax a baax liñ ci sante yàlla mooy Touba ku ko xam xam ni muy doxee xam ñi fi dëkk en réalité la waxuma ñi nga xam ne dañuy waxantu waaye ñi fi xam xam ñi fi dëkk ñoom duñ xaar kenn ci dara mhm. loolu yaakaar naa ñëpp foo dem sologa boobu ñi dëkk Touba xam nañ ko waaye bu fekkee dëgg la wax fii amul benn autorité boo xam ne mas naa taxaw fii ne ñu lii wala lee wala dinaa leen dimbali ci ndox mi mbaa sox suñu kilifa yi nga xam ne ñoom lañ yaakaar gis ñu kenn koo xam mas naa yow def descente fii kenn rek lañ ci mën a cité koo xam ne mas na koo def muy suñu chef de village muy Baye Maaw Sall moom ñëw na fi ay maintes fois soutien tamit boo xam ne jug na bu ne dana ci taxaw waaye li ci des ñun ñooy volontaire suñu bopp donte nag ñun xaaruñu tamit état waaw loolu itam fekk fi lépp kon yéen lii fan nga jëlee. d' accord loolu itam dañuy rafetlu euh, question boobu noonu parce que loolu ab taxawaay la laaj rek mooy dañoo mujj xam ne ñun ñoo bokk li ñuy xeex te ñoo bokk benn ko ñu ne nañ taxawal benn association boo xam ne ànd defar Gouye Mine lañ ko tuddee. ànd defar Gouye Mine la association moom moo am taxawaay daaw. ren mu am ko ba ren yàlla dogal ñu jënd ay machine ak ay bolon ay bonne volonté yoo xam ne dañoo dem seeti leen ñu def ci seen alal ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ñoom xam nañ seen bopp Euh, ñoo xam ne mënuñu leen ñàkk a sant te donte nag ci état la bokk mooy euh, nuñ ko nuñ tuddee ONAS te Bamba jiite ko wax dëgg yàlla ñoom tamit dugal nañ seen loxo bu baax a baax malgré parce que ñun ñoo dem wut suñuy machine dajale suñu xaay suñu fukk suñu ñaar fukk jógee fi dem ba Dakar jënd suñuy machine ñëw andi ko waaye bi ñëwee am nañ jafe-jafe raakool yu gudd yoo xam dana mën a dem ba ci caniveau yi ñoom ñoo ñoom lañ waxtaanal si seen suñ collaboration ak ñoom wax dëgg yàlla ñu aal nañu sax machine bu mag joxuñu ay raakool yu gudd li ci des nag volonté rek la te ñun ñun mën nañ koo defal suñu bopp ñoo jëndal suñu bopp gasoil ñooy fanaan ci mbedd man mi maa ni sama bët yaa ngi ni démb laa gëj a nelaw ba tey jii waaw loolu moom ñun ñoo ko def waaye état moom jàppee na ci loolu wax dëgg yàlla léegi fu nekk nii nga ne ay quinze kër ñoom ñoo fi xaw a jógee léegi ñi fi ñi fi jóge nii anañu ak tamit ndax am nañ taxawaay ndax am nañu leen jàppale ngir maanaam fu ñu a nekk ak yooyu noonu ñoom fan lañ nekk fu mu nekk nii xamee aussi fii moom yaakaar naa ne kër goo génnee kër dana la fat parce que bu dul sa mbokkum deretam di sa mbokkum dëkkandoo ñooñu fi génne ñëpp ci circonstances yi rek ci lañ nekk mooy da ngay génn gis sa mbokk moo xam ne xañ na sa doom mi ngi sëy fenn soriwul wala sa mbokk moo xam ne xañ na moo la tane fa mu nekk amul ndox nga dem mu héberger la ak nu sa famille mën a toll moom Touba ñoom xam nañ dëkkin woowu noonu noonu ñooñu ñi génn fii ci condition yi rek ci lañ nekk am na ci ñoo xam ne aussi dañuy génn dem louer parce que amuñu pexe waaye noonu lañ fi nekkee léegi fu mu nekk nii comme yéen a ngi nii yéen a ngi taxaw seen bopp yan message ngeen di lancer autorité ak ñu dëkk biir Touba ngir ñu taxaw leen ci lii nii daal. ok comme ni ma ko waxee léegi Touba ku leen xam-xam ne bokkuñu population yi nga xam ne dañuy génn di revendiquer dara wala ñuy xeex dara wala ñuy marche jëm ci dara parce que ñun ku ñu xam ne xam ne ci ndigal la ñuy tënku soxlawuñ ci autorité yi dara lu dul matériel bi ñu soxla rek ñun nañ ñu ko wutal fekkee ne ay canalisation mënul am parce que biñu demee gis Bamba bu ONAS dañoo xamal nañu yéen bokk ngeen ci programme bi waaye egseegun ci kon li nga xam ne moo fi nekk actuellement mooy nañ ñu wutal ay machines yu doy waaye wutal ay raakool yu doy li ci des ñun mën nañ ko defal suñu bopp mën nañoo jëlal suñu bopp gasoil mën nañoo volonté wu nekk ci ndox mi donte dañuy bàyyi suñu liggéey donte dañuy fanaan ci àll bi nekk ci ndox mi loolu mën nañ ko suñu bopp et puis ndimbal li ñuy def nii tamit ñun suñ koñ nii di ko defal suñu bopp tamit yemalewuñ ko suñ koñ guy mil ni gépp mun sañoon suñuy agent dañ ko wax dëgg ci lañ nekkagun bu jeexoon itam dañuy dem feneen rek waaye gis nga situation bi ni waaye état moom xaaruñu ci moom dara wala beneen kilifa wala koo xam ne sax bonne volonté la lu dul nga ñëw yëkkati nañu ñu la mën naa jar machine wala nga andil ñu machine waa nga andil ñuy raakool waaye benn aide soxlawuñ ko parce que ñun dañuy bi fekk waaye fekk la tamit sa wetu bi nooy dundee nii kii daal bay boobu bala xamal na ñun akanoo sonn ñun daal xam naa ne wax dëgg yàlla guy mbind lañ dëkk waaye diirub euh, ñeenti at yi jàll moom lañ gën a sonn fi mu nii yëpp ak biir kër gii ma dëkk nii boo duggoon ci biir nii la mel dafa tooy xit dafa fees deel démb waaye nag donc sant bu baax nag di sant suñu gone góor yi nga xam ne ñu wax dëgg yàlla noonu sant bu baax suñuy doom lañ ñu baax lañ ginnaaw ba yàlla wéyee noo tee tey jii suñu biir néeg yee fee deel ak ndox sant nañ leen bu baax ñoom daal ñooy de bu bu taw bi sewita rek ñu rof seen machine yi fanaan ci ndox mi yend ci ndox mi guddeeg bëccëg tëldu ñoo liggéey sax ngeen ndox mi yi guy mbind guy ndoxam guy mbind daal soxna na loolu wax dëgg yàlla képp kuñ ci jàppalee saa borom day def ñu sant la bu baax bëgg nañ ko ci jàppale nag bu baax a baax wax dëgg yàlla. maanaam métti lool metti lool maanaam euh, man cinq yëpp ren laa fi ma a màggalee te daaw damaa jël sama xaalis bu bari maanaam près de ay deux cent ma sëkkee ko sama kër gi waaye teewut fi mu toll bâtiment bi damaa bëgg bu nawet bi wàccee moom fekkee ne moom kenn ku ma ci jàpp ma yëkkati ko ma daal maanaam juróomi at yëpp daal màggale mu ci kër gi. sama waaw sama benn kër waaw sama kër benn copain laa doon kii sama néeg nga ne. dama ko teg ay mool sama matériel bépp dama ko teg ay mool moo ko defut ci ndox laay fanaan chaque jour maanaam cinq jours yëpp ci ndox laay laay laay fanaan daal. kon kon sa fu mu nekk nii dafa fees dell dell dell dell dell. waaw sama kër dafa fees dool fi mu dool eh, machine bi ñu taal moom a commencé dimbale ndax douze moom lii war ne fi mu dool amatul ndox waaw. léegi njaboot gi nan la ñuy def bu dund ci kër gi loolu na métti de. waaw dafa métti na lool ndax sama doom bi tey donc maama sama papa sama tànk day métti ma ne ko pour ndox mi maam boo ci dee dugg te eh, maam sa day day day xasan daal sa yaram bi day xasan te amuñu moyen yoo xam ne maam mën nañu jël or sawel chaque tour butéel or sawel te amuñu yooyu mën tam xam naa dañuy jàngate ko mu metti rek ñu koy muñ te xam ne maam tubaab moo demee noonu daal waaw waaw ci ginnaaw tamit dafa mel ni kër kër bu dëkkoon la fii tamit tamit sa sa kër la bokk waaw foofu maanaam sama kër mag la maan sama kër mag la même kër gi yëpp ñetti ñeenti kër yëpp kër famille la ñoo bokk suñu bàyyi ñoo bokk ay mag ak rakk lañ daal kër gëlee sama rakk ko moom kër gi ci topp sama mag moo ko moom kër gi sama mag ko moom kër gi ma nit maag sama mag ñoo ko bokk sama mag daanaka fan yii yëpp moom fanaan si ndax amu fu mu tëdd ma ngi daral ga lay fanaan fa muy liggéey léegi yow yan message ngay lancé rek autorité yi ngir ñu taxaw leen ci yii nii xanaa ku ñu jàppale rek ku ñu jàppale rek ñun maanaam benn député lañ am ci koñ bii muy Matar Diop waaw yàlla dogale ne moom daa am kër fële usine daanaka foofu la ëpp seen kër a ngi nii kër Matar Diop boo tourné ni mu ngi moom daal la ñuy ñaan pour mu jàppale waa Guy Mbind ndax moo ne moo nekk ci état moom daal ñu ngi koy ñaan pour mu dimbali waa Guy Mbind. jërëjëf sëñ bi. ñoo ko gisandoo de euh, fii moom yàgg naa nag yàgg na yàgg yàgg na koo def du c'est la première fois daanaka euh, màggal yi passé yëpp deux ans yi passé yëpp ci ndox mi la ñuy màggalee. ci biir ndox mi la ñuy màggalee. waaw muy ay jafe-jafe yu metti yu tar yoo xam ne tey. Euh, yaakaar naa ne kuñ ci mënoon a dimbali dina baax lool euh, gis nga mbedd mi en fait parce que bi mu njëkkee taw dama dem sax euh, mobiliser luy a benn machine ñu génne ndox mi mais biñ ko génnaatee ci tawaat bi ci la amaatee ndox la amaatee ndox waa ba ci barki dem ñu ko doon jéem a manque mais machine bi dafa am ay jafe-jafe waaw fi mu nii sax ci kii nekk ni waaw waaw waaw waaw moom. mbaa du nag mais nag euh, sant yàlla bu baax xale yi moom kom comme ni nga ko waxee dina xaw a doy waa ci ñoom fekkoon ay xale rek du garaaw fekkoon ay mag rek du garaaw mais xale yi tout tànk yi ci nekk ci kër gi. Euh, ak ndox mi nu mel nii xam nga na jur yeneen mun na jur waaw kay lu mel ne sax euh, lu mel ne xam ndox mi day yokkoo lu mel ne ay yow waaw te yooyu baaxul ci seen santé waaw mais nag sant yàlla bu baax waaw pour xool li ngeen di dund daal. bi mu tàmbalee ba léegi moom mosu ñoo gis benn dimbal moom ñun ñooy mobiliser suñu bopp rek daal di kii nii daal di dimbali waaw. te dèjà sax am na benn assurance bu nekk ci koñ bi boo xam ne ñoom tamit dañoo jël am machine di xool kër yi nga xam dafa taa ñu koy génnee démb sax ñëwoon nañ fii mais malheureusement machine bi dafa am problème moo tax waaw. waaw waaw waaw mais bi waaw li ñuy lancer kay mooy. Euh, di lancé autorités yi rek ko képp koo xam ne euh, euh, mën nga rek jàpp nañu ci yàlla tax nga def ko te xam ne boo ko defee sa bopp nga ko defal waaw sa bopp nga ko parce que yaakaar naa gis sama mbokkum jullit rawatina sa mbokkum taale moo xaw a dund dund yu métti nga dem jàppale ko yaakaar lool loolu moom sa bopp rek nga jàppale waaw. kër gi ba léegi ñun ñaa ngi fi ay ñaata nit yi ñoo fi war euh, fii nag yaakaar naa bu ma juumul lu mat dix personnes ñu fi yeewo waaw ñu fi yeewoo waaw dix personnes ñu fi am na sax euh, ay gan yoo xam ne dañ fa daan faral di mais daaw gis nga bañ fi dalee ci màggal gi ak ndox mi euh, ren dañoo wax ne ñoom duñu fi mën a dal parce que ak ndox mi yooyu noon waaw te effectivement moom ils ont raison quoi waaw